madinatu ilmin murtajan minnatun lana jariun munjin min sunubin wa min sulmi ما لا أني بنبي كل فاسد وسرت بي عبدا خديما بلا خمي من الله رب العرش أبقي صلاة بتسليمي للمصطفى الموجل اليمي. السلام عليكم ورحمة الله. mbokk yi ñuy déglu te di seetaan ñu dellu siwaat ci seen jataay bi ñu tuddee Madinatul Hilmi ñu di ko amale fii ci sunu site bi ñuy wax 24 ñu fas yéene ànd ak yéen nag ci jataay yi nga xam ne baaxoon nañ ko ànd ak yéen di leeral di wax yu bare bare loo xamante ni ay actualité dinañ ci wax dinañ wax tamit lu gën a teel ci wàllu diine ji di ci invité ay boroomi xam-xam di ci ànd tamit di ci waxtaan te nag ñu fas yéene woon a ànd ak yéen ci wàccaayu màggal gi muy 18 safar 2018 ñu gis ne safar gi wàccaay yi ak màggal gi sëñ bi moo ko woote woon mooy sëñ bu bi moom moo ko woote woon ci njaareem waxoon 1921 ba 22 lan wax ne ci la ko sëriñ bi woote ci njaareem wax ne nan ko ci sant la yàlla mu waxee nan ko ci sant yàlla <coughs> daf caa wax ne li ko dale ci giléem ba ci ginaar lu ci waaye am na ko ci defar boobu tamit mu woowoon mag mi ne leen na ngeen ma ci santle yàlla waaye bu ci kenn yéem ginaar bu ci kenn yéem giléem waaye bu ci kenn xeeb ginaar moom nag wax naan na ci taarix lim ci njëkk a def mooy aw bëy la amoon bëy woo xamante ni bëy wu am giir te mën a am soow la xam ngeen foofu ci njaareem xam ngeen ne ay séeréer ñoo fa ëppoon yàlla dogal ñoom ay nit yi baykat lan ak sàmm <coughs> sëriñ bi ñu joxoon ko àddiya aw bëy sëriñ bi wax ne nan ko weccikul bëy wi ci séeréer si nekk njaareem buñ ko ko mënee defal xar bu fekkee dañ ci dolli dara sànni ñu dolli ko waaye nan koo defal xar comme séeréer si ñoom ñu xamoon giiru ay bëy xam naa nga min gisee bëy wi dañuy lox ndax bëy la wu mën a am soow mën a am giir am giir mooy bu mën a jur lu bare bare ñoom bi leen sëriñ bi waxee daa bëgg wecceeku gëme mun ko sax ñoom ñu wecceeku def ko xar sëriñ bi wax si mu laay bu sa ne ko nan ma ko dencal boo fukki fan ak juróom-ñett ya ñu defal moo ko ñetti xaaj benn ba ñu ma ko waa daaree kaamil bi ci des ñu saraxe ko benn bi ñu jox ko ay magi waa barsàq yi muy soxna Aminta Bousso ndey Aminta Bousso ak ñooñu mag ñooñu fi newoon bis bi lu ma am moo tax ma am ko lu ngeen wut si ci man fekk ko fi tamit bis bi moo tax moo tax woyam woykatam bu siiw boobu te xamoon sëriñ bi wax ne bu du woon ak dem gi wolof nasaraan te kon bi lee ñëpp dem niiraani am na ñu wax ne sëriñ bi sax daf leen wax ne leen <coughs> na ngeen ko def waxuma yéen moo gën tabaski ci yéen moo gën tabaski waaye yéen moo ci gën ci yéen am nañu leen noonu fissa bi ba mag ña sax dana waxoon ne ko dañ ko tudde woon màggal tabaski waat Euh, ba sëriñ bi ku bañ bi daala ne leen bu leen ko wax lool ginnaaw bi mag ñi nag bu nu amee ñaari xar ni ba benn ba ca tabaski gi ñu rey mel bu ñu demee ba màggal ñu rey bi ci des waaye léegi li ci dolleeku mooy gis na ne xalifa sëriñ Tuubaa yi muy sëriñ Falilu moo woote màggal gi fii am nañu wax ne cent quarante-huit wala quarante quarante-huit sax xëy na moo gën a siiw la ko woote Touba ne leen de leen màggal waaye sëriñ bi moom dafa waxoon fu waaye ci sant la yàlla dogal sëñ Fallou woote ko fii ngir dajale ci murid yi ak def ci programme ba mu solo sëñ Fallou nag ba mu ko wootee dafa wax ne bisu màggal gi la woote bis boobu moo doon la mu waxoon mooy nan ci jàng alxuraan ak di ci bernde loola nag ñu gis na lu am solo la ndax gis na ne màggal gi li fiy daje ciw nit gis nañ ne ay mbokk yu bari yoo xam gëjoon nanoo gisee bis boobu la ñuy ñëw daje eh, gis na ne sax ay problème yu masaana am ci famille bu ndikkee ci lañ koy waxtaan gis nañ ne sax jamono yooyu yoonu murit lépp lu mu bëgg a programme wala bëgg murit yi yëgandoo ko ci màggal bi la mu koy waxaale loola nag noonu la ko ñoo sëñ Fallou di wootee ba sëriñ Abdou woote ko sëriñ Abdou bi mu koy wootee dafa wax na ni jàng ñetti kaamil benn bi ñu def ko addi yonante bi defal ko ko sëñ benn bi ñu def ko sëñ Tuubaa benn bi ñu def ko addiya ñetti kaamil la ko waxoon loolu yàgg ci loolu ku ne xam na ne màggal gi ci suñu blaat développé gënati bu baax a baax baax ci ni mu ko daan wootee ndax daana wax ne dama amul dara lu ma leen mën a defal te gis loo xamante ni ku ci ñëw sa yu àdduna ak àllaaxira am ja moo tax ma di leen xiirtal ci màggal ngir lu ngeen mën ngeen def ko ci danaa wax sa màggal amaluma ko biste lu ma am dinaa ko ci def fii leen njëkk a gisee ci màggal ñuy jal jalu yàpp jalu yàpp ndawal maanaam jalu ko jóor ko loolu ci màggal gi lañ ko gisee njëkk a gisee ci daanaka fii loolu nag bu ñu dikkee ba jamono nag ñu dem ci jamono boo xamante ni dañuy waajal màggal waajal màggal nag yàggul xew xëy ko fi génne yàggul mooy waajale ko fii ci biir dëkk bi wala ñu waajale ko ci génn ba bitim réew dem di ko fa waajal yooyu gis nañ ko yooyu yëpp nag yaataloon màggal gi ak nit ñi xam importance màggal xañ na ñu bari loolu lañ ci jublu woon nit ñi xam màggal ndax yoonu murit war naa fu ñëpp yëgandoo ko di xam li xew événement bi ñëpp xamandoo gëm naa ne système benn bi noonu lañ ko doon doxale bëggoon nit ñi xam ne événement nangam mooy xew ci dëkk sàngam muy Touba. loola nag euh, def nañ ko bi ñu ko defee ba ñu bare xam ko ci la ko commission bi yore màggal gi ci jamono yi sëñ Sidi Muxtaar jamono El Hadj Bara ci lañ ko tàmbali te loolu sët yi ñoo ko yokk noonu te loolu dafa baax nit. ku nekk wolof bi dañ naan ku yokkut yaa wàññi loolu biñ dikkee ni dawal waaye ñoom it ab diir lañ ko def taxawal ko xam ne liñ bëggoon ci resir ak nit ñi xam ko xam nañ ko li ci dolleeku nag mooy léegi dafa am ñeneen ñu jugaat loo xam ne du génn dëkk bi wala mën na koo génnaat taalibe yi jëlal loolu seen bopp ñoom di ko organiser bopp première safar ba le 18 ba 19 dañ koy def ay feet bis bu nekk ñu togg ci bernde ci jàng ci alxuraan kenn bu ne baaxul waaye bu fekkee dañuy dem rekk ci sunna dañuy delluwaat ci li sëriñ bi defoon mooy sunu sunna mooy bisu 18 safar la waxoon ndax sëriñ bi xamoon na bis yi dox ci diggante bi manoon na li ko dalee ci première safar ba 19 wala ba weer wi na ngeen ma ko defal waaye moom dafa waxoon ne fukki fan ak juróom-ñett yi ci yàlla kon xamoon na mu yemloo nit nag bokk na ci liy roy sunna mooy lépp loo xam ne yonante bi deful ko ku ko def biddaa la biddaa nag li muy firi mooy ak yàq la mooy kuréel kiy def loo xam bu ko laajee foo ko jëlee du mën a indi yi bu la laajoon ne la màggal gii ngay def foo ko jëlee fukki fan ak juróom-ñett danga naa sëñ Tuubaa moo ko digle woon waaye li ko jiitu bu fekkoon am na leneen luñ ci war a def dëgg dëgg dëgg mooy jàng ci alxuraan dëgg la ñaanal ci sëriñ bi sant la yàlla sëriñ bi ci alxuraan bu dee bernde yi day dellusiwaat ci ñun rek mooy. ñooy dajaloo rey suñuy xaar dajale suñuy xaalis keesu daayira jël ko bëggoon léegi nag bu ñu seetloo li ciy xew ak li nga xam ne li jar firee ne ba waxtaan ci mooy dañuy dem ba jamono ba muy tuut dootuñu màggal seeti nit ñi ku ci nekk da toog fa nga toog nga ne naa fi santale yàlla sëriñ bi bu fekkoon ne suñ lu xamut woon ne woote gi moo gën kon du ko woote waaye dafa xam ne woote ko moo gën ñëpp ñëw Tuubaa ndax symbole bi nga xam ne murid yi moom lan bokk te mën na koo séddoo mooy Touba waaye feneen fu dul Touba murid yi am nañ fa wàll mën nañ faa bañ a am wàll waaye Touba moom yoon murid yi rek ñoo ko moom mooy symbole bi nga xam ne ñoo ko bokk Sëñ Fallu xam li nu bokk ñu woode ko bu fekkee nag nit ki nag dafa dajale ci masala ñeenti million bis bu nekk mu tàmbali 18 safar première safar ba le 18 bis bu nekk mu xëy guddi gi ah, tàngal ay kafeem togg ay nagam ñu lekk ba ngoon bu subaa ñu xëyaat nekk ci yaakaar bu fekkee lu mu war a indi Touba xam ngeen ne ci xel li mu nangu mooy li muy indi du bari la muy def nag mooy loola li muy wàññi nag mooy wàññi doole yi doole màkk bi sa kenn ko waaye doole yi li nga waroon indi bernde ko fi sa kër nga ko indi woon walla gan ñi ñëwal sëñ Touba te gan ñi ñëwuñu ci yeneen dëkk yi tuubaa lañ jëm si. Touba lañ jëm si kon ganaleel sëñ Touba ganam yi mooy nga ñëw ba Touba nga ganaleel ko. waaye leneen li ci des nga jël xaalis bi pasar pasaree ko du ma waxee noonu sax waaye jël ko ñu gaspillé ko ci foo xamante ni sëriñ bi santu leen ko seen ak xëy tax ñu def ko loolu jar na seetaat bu baax bis bi mu sëñ bi digal yaakaar naa ko jëloon li nga am ci àdduna lépp lépp ci alal nga jaay ko def ko ci dem nga li sëriñ bi bëggoon beneen bis boo defaatee tamit da ngay dàkk bëgg sëriñ bi amaana nga dajeek moom amaana doo dajeek moom waaye li la leer ba leer la mooy sëñ Tuubaa fukki fan ak juróom-ñett ki benn bernde woon ñeenti fani safar wala juróomi fani safar daal di dem toog taxul nit ñi bàyyi màggal waaye saa bu nu demee ba 18 safar jeex màggal amatul moom leneen moo am mais leneen safar amatul kon nag li lay won ne nag moo gën mooy def ko ci bis bi te doomu aadama lislaam dafa tënk ay wax dafa tënk ay waxtu lii def lépp dañ ci waxtu la ko tënk mooy boo bëggee julli mënoo julli mu mukk te jotagul mënoo ko wala fi ñu la koy maye mënoo aji màkka te heure aj bi jotul mënoo ko def ci weer wu dul weeru aj koor kenn mënu koo def ci lu dul weeru koor wane woon damay weeru maanaam ci masal dana man mois de août bi laay am conseil waxtu woo day sedd damay woor bu koor gi dikkee ma noppalu wala du ma woor loolu du tax nga am koor kenn du la wax doo am yool waaye yool ak kooru ramadaan doo ko am moom mi nga xam ne lay tamit ki nga xam ne dana woon day jëf ci weeru safar mën naa jëf lu mu ci mën a jëf baax na kenn du ne baaxul waaye la taxoon sëriñ bi waxoon defagu ko mooy 18 safar ji sëriñ bi waxoon defagu te li muy jur nag mooy toog nit ñi ñëpp toog ñu ci bari di ko def ba màggal jotee dootuñu am cawarte seen xol sax dootul amati xolu ñëw Touba te xam ngeen ne sëñ Touba bu fekkoon ne nekkul Touba nii Touba mel du ni mel nekk gi mu fi nekk moo tax dëkk bi mel nii nekk gi mu fi nekk moo tax dëkk bi mel nii. ni mu mel nag sëñ Fallou di xalifaam di doomam mat sëñ Touba sëkk xam sëñ Touba gën a dégg ñëpp sëñ Touba ndax sëñ Touba Fallou damay wax ne seet Cheikh rek kenn gënu leen a dégg sëñ Touba bu fekkoon ne am lu luñ ci war a yokk wala luñ ci war a wàññi kon sëñ Fallou dina ko def sëñ Blaat yaakaar naa ne bu fekkoon ne luñ ci war a dindi la lan war a dindi ci yoon lépp lu ci bari def ko cee dindi lu ci bokkul nit ki nag warut yor ak xelam waaw yor xelam di dem ci wàllu woo xamante ni day gaspiller yàq la mu yor ci alal te man naa am bu noppee lu ci am yool ba mu ci gënoon dëgg la kar nit may leen café wala suuru màggal nga ak yooyu yëpp lu baax la ndax lu waaye loolu nag defe ko Touba moo gën sëñ Abdou Khadir dafa mas a tàggu sëñ Modou Sané ko damay woor a ji Touba mu ne ko lu baax de baaxee ne fépp waaye sakkane na Touba sikkee na Touba kon loolu li muy tegtale mooy lu baax looy def Touba la gën a baax defe ko moo gën foo ko mën a defe nag liñ ci gis nag lu mel nii nag ñun laa labyrinthe la rek du yedd ñi koy def du nangam ndax ku sañoon sa alal foo koy def boo ko defee boo noppee di nga ci gis résultat di nga gis yoon mais li muy yàq ca kanami kanami kanam ñu comprendre màggal mën na ne léegi foo ko defee baax na te gis ngeen ne at yi ñu passé am na kilifa yoo xam màggal suuna danoo woote ci bërëb sàngam màggal ba te loola la muy tegtal mooy bu ëllëgee geneen kilifa woote ci béréb sàngam ne dafay màggal bu boobaa dëkk bi def mooy day wéet kenn du ñëw loolu nag ñu teel ko euh, waxtaane ak ñu xam ne symbole murid yi mooy Touba li nga xam ne Touba symbole dëgg mooy jumaa ji ndax sëñ Touba bi la tëdd fi mu tëdd ñu ko fiy defale sant lay yàlla yaakaar naa moo ko gënal fu mu mën a am daroore nag dina am ki mënta ñëw na xañ na mën naa ne ña nekk bitim réew mën nañ faa def bisu màggal ga ñu def seen cant te noonu la daan amee sax ñu def ko mais yoon yi suñu bàyyee nii mu mel ni dama yàlla baal toolu pël fu neex waaye nga organiser la nga fa bëgg a organiser loolu li muy jur mooy ku nekk day mel ni kilifa amatul te yoon bi benn baat la woon ñu amoon kilifa kilifa googu dama war a ñuy def ñu am ci ndigalam di ko xool nu koy defee mais màggal gi la ñuy woote bu fekkee da nga koo woote la nga waroon a indi nga jël benn yaa xam sab sëriñ nga waroon a kii wala daayira bi nga waroon a jox ki fi toogal Sëriñ Tuubaa nga ne daayira bi lenn li ko cante lenn li nan yóbbu wala bu desee ñu yëg sëñ bi loolu sax gis nañ ko lu bare bare am na daayira yoo xamante nii li ñuy def dañuy cant ba noppi la des ca daayira ba ñu ne nañ ko jébbalee la fa des kon li li muy tekki mooy sëriñ bi nga ko jox da def la nga bëgg a def ba noppi la ca des nga ne naa ko jox sëñ bi muy aw des sëñ Tuubaa nag ngaa war la gën a baax nga jël ko jox ko ko ndax saxaaba yi danoo wax ne la gën a baax ci seen alal lañ daan jox te kenn du am ci yàlla aaya alxuraan kenn du am li nga gën a bëgg la la nga bëgg te joxe woo la nga gën a bëgg la nga gën a bëgg mooy sa alal la ca gën nga jox ko sëñ tubaa sëñ tubaa yellante naa ñu koy jox aw des yellante naa bisam bi euh, ñu koy defee ci noo xamante ni du programme mu boppam du lu ay xalifaam digle lu dul sa xalaatu bopp nga ko teg te loolu gis nañ ne bu ñu ko teelu te wax la muy jur lu rëy la wala fi nag dañuy wax ne magam waxoon naa ko du ma magam xamoon naa ko waaye magam waxoon naa ko li ko waral nag mooy xam ne ci yoon wi lan bokk ni ci ñëpp bokkee ñu ciy wax lu ko defar lu ko defar nag ñëpp tolloo wuñu xel moo tax ñun ñëpp dañ cee fas yéene waxtaane fii ba màggal gi ñu waxtaane lépp lu ñu yëg ne kii na ci waxtaan danañ waxtaan ci war may dëkk bi tamit nin ko war a jàppee ak wàccuwaay yi am kii màggal si lan mooy màggal lan mooy màggal ndax am na dañuy ñëw Touba rek ñëw ak màggal si bokkul baatu màggal ci Sëñ Touba lañ dégg kenn mosu koo dégg ba mu ko waxagul kon nag loolu war ngaa xam ne màggal mooy lan nan lañ koy defee nan lañ koy defee ngir am ci ngërëmal sëñ bi yaakaar naa murit bu nekk la muy yëngu mooy bëgg ci ngërëmal sëñ Tuuba loola nag boo ko xamul mën ngaa def ba sonn fekk na doo ci am benn yi kon yaakaar naa ne fii la ñuy taxaw di leen sant di gërëm di leen jox dañuy tamit fii ba màggal ñëw ñu fas yéene waxtaane lan mooy màggal ak war mooy Tuuba ak nan la ñuy màggale bu ko defee yenn yi dinañ ci ànd yenn yi ñu dem ci yeneen borom xam yi ñu waxtaan yi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm Cheikhouna moo nekkoon ci caméra soxna aw moo réalisé moom itamit ñu ngi leen di sant baax leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah madinatu ilmin murtajan minnatun lana jari wa muddin min sunubi wa min sulmi maala wa ani bi nabi kulla fasidin wa sirtu bi abdan xadiman bila xammi min allahi rabbil alamin أبقي الصلاة بتسليمي للمصطفى الموجل اليمين